day moo ñu jàngal ci ab téeréem ni jullit lépp loo xam ne da koo mën a dal walla lépp loo lépp loo xam ne da koo dikkal day xam ni lii day jógewul ci kenn ku dul <clears throat> boroomam subhanahu wa taala suñu boroom mu ne xam leen ni lii di am nattu la ca gën tuuti ci tuuti lépp ci yàlla la jóge te yàlla bindoon na ko lu yàgg lool mi ngi leen ñi xamal ni xéewal ya lum mën a doon ci yàlla la jóge ngiree ngeen doon ñoo xam ne bu nattu ñëwee du ngeen doon ñoo xam ne dañuy tiisu ba ñekki fàtte yërmande yàlla <clears throat> waaye bu xéewal amee du ngeen bew ba bew googee fàttale loon lii di ngeneelu yàlla suñu borom yàlla wax ñu xeet ya ñu fi jiitu woon nee na daa sotti woon ci ñoom xéewalu àdduna xéewal yooyee ñu topp ko dem daal koy bége ba fàtte borom xéewal ga muy suñu borom suñu borom nee na ci noonu laa leen jàppee te la nga xamee ni nii mooy ci mbetteel fu ñu ko yëgewul woon looloo tax ba mbokk jullit day am loo xam ne boo koy gis da xam ne ñu koy def day ñàkk xam lañu doomu aadama lépp lu la mën a dikkal ci xéewal lépp loo xam ne ak ngañaay la lépp loo xam ne nii ab réussite la ndax jullit da koy teeroo tëgg fecc bàkku laa wallah ku xamul yàlla rek mooy def loolu koo xam ne ni jàpp na ni xéewalu àdduna gu yem ci àdduna muy xéewal rek mooy def loolu yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam waa Makka xeex nañ ko lu ëpp fukki at mu dem Madina ñu xeex ko lu jege juróom-ñetti at suñu borom yàlla daal di koy dimbali ci ñoom mu gañe leen waaye keroog ba mu yégee ne gañe na Makka ba muy dugg ci Makka daa sëggal loosam ba ba loos way bëgg laal baatu gileem ga ngir toroxlul yàlla mi nga xam ne moo ko may xéewal gi lan la jëkk def dem dugg ca néegu umu haani julli fa juróom ñetti rakk ca yoor yoor ba mu ubbee makka sant boroomam avant muy demaat ca la nga xam ne muy nit ña ba loolee dañ koy tudda ci lislaam mooy rakk taynil fatx gannaaw loolu sahaaba yi ci gannaawam heure bu ñu masaan xeex ak seeni noonu ba gañe leen suñu ubbee dëkk ba lañuy ñuy njëkk a def mooy ku nekk julli ñaari rakka sant boroomam loo xam ne benn jullit waru koo réere mooy yeneen bi alayhi salaam moo sunnal ci ñun jullit heure bu ko xéewal dikkalee day def ab sujuud mooy sujuudu shukr sujuud ngir sant boroomam ci xéewal gi nga xam ne ñëw na sujuud ngir sant boroomam ci natt bi nga xam ne mucc na ca amma ko jullit ay jullit xéewal dikkal leen ñuy tëb di fecc di yàq di défalewu loolee mbokk du màndarga jullit màndarga ñu xamul seen borom lañu loolu moo tax ba yowmal qiyaama suñu borom dana woo ñu mel noonu ne leen yéen dey maa leen xéewaloon ci àdduna amu leen lu ngeen ma sante xanaa lu dul fàtte ma di tëgg ak a fecc tey jii day danaa leen fay pay bu méngoog seen fay te mooy sawaraa nga ne ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون تلين نكون ديك بيجي لين نكون ديك بيجي تنبقوا لولو يالا بغوكو مجخون نتي مثال تي جامن بو خمني جخون نكو خيول يمغ لول مي قارون كيرو بام جابي ني مومي بوبام ديفيلي تي مبدي ايجيبتي اندك لو جيجي جوني تي اي جام لو جيجي جوني تي اي فاس di wane mbégteem bokk na lu ko borom xam-xam yi waxoon ay xaaruun ngallaawaay xamal ni lii yàlla la ko jox xaaruuna bul bew bul puukariwu yàlla bëggul koy def lii mu jàpp ne déedéet effort boppam la xéewalu boppam la lan la yàlla mu mujjéeg moom mooy xar suuf dugal ko ci mi ngi jalti jalti ci biir suuf ba ila yumi diin et yéen mbokk jullit jullit mooy ki nga xam ne la muy bége mooy mbég ba koy jegeel boroomam lépp loo xam ne xool nga ko du la jegeel sa boroom loolu di mbég wallahi du mbég jullit di bége loolu mukk jullit la muy bége mooy la koy jegeel boroomam loolee neex nag naqari na ca bokk na la gën a neex ab jullit mooy mu def ak jaamu yàlla ba pare ca yonent bi sallallahu alayhi wa <clears throat> xam nañ ne li ñu yàlla teg bokk na lu ci gën a métti mooy koor moo tax sax yàlla ni doomu aadama jëfam yépp moo ko moom ba mu des koor maa ko moom ndax koor ni mu méttee yéen gone ndakaaru nag yéen xamu leen nuy koor xamu leen nuy koor soo bëggee xam koor laajal ñu jóge Linguère ñu jóge Kédougou ñu jóge Bakel ñooñu ñoo xam luy koor waaye koor googu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ki woor ba kooram jeex dana am ñaari mbikk waa ju woor weeru koor <clears throat> ba ñu séntu na ah feeñ suba la korité mu ne dana am mbég buy dugg ci moom waaye bis bu dajeeg boroomam dana am mbég mu raw mbég boobee <clears throat> mbokk lii la jullit di bégee benn yàlla santaane woon jaamu yàlla gu màgg gi man ma yàlla wërsëgal ma ba ma taxewoo ko ba mu mat sëkk ana ñaata ci ay doomi jullit yoo xam ne bëggoon nañ ko ca mënuñu ko ñii dee nañu avant muy jeex ñii ña nga tëdd feebar mënuñu ko man yàlla may ma ma yeggale ko loolee di xéewal gooy sante sa borom boo dajeeg moom nag cant ko gën a raw loolee misaal boobu bañ ko yonent bi salaam di wax ci koor loolu moo am ci julli jullit heure bu yégee ne waxtu wi jot na nga dem jàpp na nga war a jàppee yàlla wërsëgal la nga dem jooxe waxtu wa na ko yàlla gërëmee bu dee jullit nga dem ca mbooloo ma loolee mbokk moo lay bégal heure buy génne zakkaatam même bu doon zakkaat ba cent la mu koy génne ci alalam di ko jox fuqara yi loolee mbég la koy jural heure bu demee aji ji makka wala bépp jaamu yàlla bu mu mën a doon loolee da koy jural mbég lu tax mooy day xam ni xiiwal gii da koy jegel boroomam waaye ay mbokk julit fal boo xam ne nii dalay soril sa boroom victoire bu lay fàttaloo sa boroom réussite bu lay fàttaloo sa boroom heure boo jàppee ni lii xéewal la ba nga cay bég mooy yow xamoo mbokk loolu dañ koy tudde bay bal bay bay la muy istijraaj suñu borom yàlla dala koy nattoo loolu moo tax ba nga la waay góor-góorlu leen xam rawatina yéen jeunesse bi ana ci lan moo war a tax ngeen war a kontaan mooy ngeen dem ba xam seen diine boroom dem ba xam seen sunnay boroom looloo gën doctorat moo gën ngeen nekk ay expert moo gën ngeen nekk lu mën a doon Omar ibnul Xataab radiyallahu anhu indil nañ ko ay zakat yu bari yu jóge ci azaka yi giléem yi bari lool nag yi bari lool xar yi bari lool kenn ci ñim nekk loon na a omar haza fadlun azim ngënal bu réy ngi ni ñu ne omar da ko dóor yat bi mu yoroon ne ko déedéet waxoo dëgg qul bi fadlillahi wa bi rahmati fa bi zalika falyafrahu huwa xayrun mimma yajmaun lay ngeenel deug lay xewal deug lay banex deug moy alquran ak sunna bi ñu yàlla wërsëgal lolo tax ba ki nga xamne mo xam deug moy jema xam alquran jema xam sunna moy xewal gi gëna reey gu doomu adam yam ci kaw suuf umar ibn al-khattab fukki at def nako li jàng suratul baqara waxuma pour mokal ko arab pire la mo ngeen ba ñoo yam bu ko bëggoon mën nako mokal même pas 15 jours waye def na fukki at ngir mokal suratul baqara ngir xam aaya yi ca nekk acca yi ca nekk naka la koy war a pour jëfe ko ba mu demee ba yëg ni suratul baqara dugg na ci xolom suratul baqara dugg na ci ay jëfam omar dafa dem rey benn giléem daal di koy sarxe sante ko yàlla jalla wa ala mbokk lii mooy mbég ba jullit di war a bége jàng diine yàlla ji ba daal koy xam maîtriser ko loolee moom la ñu war a bége ay yow mbokk jullit xamal ni yenent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngal nañu façon mbég ci wàll yu bari ca mooy jullit la koy bégal mooy lislaam yokku na la koy bégal mooy lislaam am na ndam la koy bégal mooy yëg na lu ko jegeel boroomam xoolal yenent bi sallallahu alayhi wa sallam kaka gënoon a sonal ca makka mooy abu jahal say say bu ban ba taqoo ak doomam ja ikrama nekk jàmbaar joo xamee ne nii moo taqawoon ak baayam sonal nañ jullit ñi ci place yu bëree bëree bari waaye ba yàlla wëlbatee jamono ba iqrama yëg na lislaam mooy dëgg mu daal di jóg tuub si ne day tuub si ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba ko yonent bi seeni muy ñëw daf na bërit jóg gàttundu ko ñu yëg ci kanam nga kontante goo xamee ne nii jéggi na dayoo lu waral loolu mooy ab noonu lislaam mi ngi nii yàgg xeex lislaam tey pare na ba ngir dimbali si lislaam te noonu ko yonent bi waxoon keroog xaswatu yarmuk radiyallahu anhu ikrama la ànd ak julit ñi ba keroog fa la shahid lii mbokk mooy la nga xam ne mooy mbékk te mooy nga yëg ne lislaam mi ngi yokk nit ñi ñi ngi dund lislaam looloo tax ba doomu aadama bi dafa war a bàyyi xel xoolool yonent bi salallahu alayhi wa sallam am na kenn ci sahaaba yi mi ngi nettali nee na dama dañoo toog ci jàkka ji am ñoo xam ne dañ jóge ca mudar doon ñoo xamee ni nii dañoo pauvre amuñu dara lu ñu sol ñëw ci jàkka ji yonent bi aleyhi salaam xool leen jóg daal ñaax sahaaba yi nu ñu def ba dimbali ñi sahaaba yi ñoom ñëpp dem seen kër ñu indi ay ndimbal indi ay ndimbal ba jóor ci jàkka ji ñaari jàll waa ji nettali mu ne kanamu yonent bi sallallahu alayhi wa dafa mel ni dañoo jël poudre or teg ko ci ngir mbég ba nekk ci moom ca lool it mbokk mooy bégal jullit mooy nga yëg ni jullit ñi kat am nañ yëg-yëg ci seen mbokk jullit jullit ñi ñi ngi topp la nga xame ne nii moom mooy ndigal yàlla ak ndigal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ay yéen mbokk jullit nañu lu bu baax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam toog na ca Badr ñi ngi ànd ak ñetti téeméeri nit ñee di yéefiri màkka ngi ñëw nekk junniy nit waa Madina dañu waxoon yonent bi alayhi salaam bis boo gàddaay yi ñëw madina dañ la aar ni ñuy aare suñu njaboot tey nag yonent bi génn na madina ma nga ca àll ba waa Makka ngi ñëw mat leen ñetti yoon luy pexe yonent bi ne waaw ah nit ñi lu ngeen xalaat bi loolee kenn ca jàmbaar yi waa ansaar jóg di miqdar ibnu ibnu aswad daañu na ko yu mu yàlla yónni mbaadu ñun ngay xalaat ñun waa ansaar déedéet yow mi yonent yàlla yónni bul xalaat ci ñun lenn lu dul lu rafet wallahi jógal duñ la wax mukk la yahud ya waxoon Muusa izhab anta wa rabbuka fa qaatila inna hahuna qaaidun demal nga xeex ak sa borom waaye liñ lay wax yow yonent yàlla bi jógal boo jógee dag ñu fekk sa kanam fekk ñu sa gannaaw fekk ñu sa ndeydoor fekk ñu sa càmmooñ wallahi boo ànd nañ nañ kaay leen ñu xuus géej gi amul kenn ci ñun koy des gannaaw yonent bi alayhi salaam kanam gi mel ni mi ngi noonu di nës ak la nga xam ne mooy kontante ca mooy loolu mooy kontaan loo julit mooy nga yëg ne ay ndaw te ñi mooy ay ndaw lañu woon ay ndaw yoo xam ne dañoo jóg jublu ci diine yàlla ji ndaw yoo xam ne dañoo jóg di woote ya di di di di woote jëmin ci yoonu yàlla lii moo war a bégloo ab julit waaye mbokk julit li nga xam ne seede lañ ko fan yi passé nit ñi jàpp ne lii mbég la wallahi ñàkk a xam la bépp bég boo xam ne jégalu la sa boroom xamal ne dalay soril sa boroom àdduna amul lenn lu fi taxaw imma nga jëm ci yàlla wala nga deltu gannaaw lii rek mooy mbir bi su ko defee yow nga xool yow jullit ana ci lan ngay jàpp ne mooy la nga xamee ne nii moo lay bégloo nga jàpp lan mooy la nga xam ne mooy victoire ay yéen mbokk jullit xam leen ne suñu borom mi ngi ñuy nettali shuhadaa ya nga xam ne dañoo nekk ca moom borom bi subhanahu wa nee na ñoom day ña nga fa nekk farixina bima aatahum allahu min fadli wa yastabshiruna billazina lam yalxaqu bihim min xalfihim allah xawfun alayhim wala hum yaxzanuun ñooñee dee ci yoonu yàlla yàlla teeru leen ca barzaq ci xéewal yoo xam ne mënuñu ko comprendre ña ngay nekk barzaq di bégge ci seen ñi ñu bàyyi gannaaw yoon bi nga xam ne ci la ñu nekk ñi ngi bégge ci ñoom ndax xam nañ ne ku dee ci ñoom dana leen fekk si te lii mbokk moom mooy texe ay yéen ndaw julit ñi nga xam ngi xam ngeen équipe nationale bal am na ci yéen ñoo xam ne Paris Saint-Germain ak Monaco ak leneen dara réeru leen ci am na benn ndaw boo xam ne nii dañ koy wax Haram ibn Malhan Haram ibn Malhan bokkoon na ci juróom-ñaar fukk ñu yonent bi tànnoon ñu demoon ci ay giiri arab ngir jàngal leen diini ñu piège leen bañ leen piégé rey leen rey bu bon kii di Haram benn yéeféer doxoo ko gannaaw dëbb ko benn xeej ba xeej bi génn ci kanamam mu daal di ne fuustu wa rabbil kaaba ee waay texe naa maa ngi wàcc borom kaaba gi ne texe naa yéefir bi ko jamoon xeej bi loolu da ko impressionné mais noo kii mi ngi dee naan texe na ca la jóg moom dem gëstu lislaam ba loolu moo ko dugal ci lislaam mbokk texe dëgg-dëgg yéen ndawal jullit mooy ngeen fexe ba dund seen diine borom fexe ba dee seen ngërëmal boroom dem ci àjjana joo xame ne nii wallahi la nga xam ne moo moo moo fa nekk borom bi nee nag moo gën a yaatu asamaan yi ak suuf yonente bi alayhi salaam nee na ki gën a ya ki gën a tuutale ci lakk ko yàlla may ca ca ca àjjana mooy ki am suñu àdduna bi fukkeelu yoon dañoo julli fii barke démb ci timis bilaal yal na yàlla dollu ñu ñëw dollu dollu ñu yiw lu ko yiw bilaal ne ma ah imam dégg nga liñ may jour yi man de dana danaa jàngi football naka ah, waa d'accord yàlla dogal Cheikh Ousmane mi ñu doon jiite hafizahullah jàngal ñu aaya yii leen jàngal léegi borom bi subhanahu wa taala mu ne may indi nattu di andi xéewal li kay laa tafraxu bi ma aataakum ngiree ngeen bañ a bew gën a nekk di puukarewu xam leen ne adduna du dara bu ngeen muñee la leen di xaar mooy àddina joo xam ne moo gën a yaatu asamaan ak suuf biñ pare mën a bilaal ah dégg ngi li imaam wax day nee na buñ góorgóorlu ci yoon bi du 200 mètres Dakar 500 mètres jam ñaajo mooy xaar waaye li xaar mooy àjjana yoo xam ne moo gën a yaatu asamaan ak suuf mu ne kon bàyyi naa football maa ngi jaamu ji yàlla e yéen ndawal julit def leen loolu ndawal julit xam leen ne réussite dëgg dëgg dëgg du kii mi ngi gagné un milliard par mois kii mi ngi am des châteaux ou des des des waaye réussite dëgg dëgg dëgg mooy ngeen fexe ba juba ak seen borom mbokk ndaw day dee gone day dee benn ndaw boo xamee ne ni mën nam xutba bi waa kër ñu ngi koy dégg démb ci ngoon mi ngi nekk fii ci terrain basket bi ci timis lañ ko rey fii ci stade bi yal na yàlla jéggal ko yàlla yërëm ko dama koy joxe misaal ngir ngeen bañ a jàpp ne ah ñun ay ndaw lañu mag ñi nañ jaamu yàlla ñun bu buñ màggee jaamu yàlla dara garanti wul ne yow da nga nekk mag te it xamal ni texe gi nga bëgg bonheur bi nga bëgg dëgg-dëgg wallahi mi ngi nekk ci nga juboo ak sa boroom ki a neex dund boroomam loolee mbokk nañ ko xam di bëgge suñu diini di bëgge jaamu yàlla lépp luy mooy yàlla lu ci mën a nekk ci ay xéewal ak i ak i bànneex ñu wan ko gannaaw te xam ne loolee ay nattu la mbokk la nga xam ne moom lañ ciy tëje mooy ay yendawal julit fexe leen ki ngeen di bëgg muy koo xam ne dangeen a yëg mi ngi jëm ci boroomam moytu leen bëgg ñu jëm ci àdduna bii de yéen Anas ibnu Malik nee na ci loo xam ne rot na ci Buxaari muslim yépp dañoo toog ak yonent bi alayhi salaam benn góor jóge fële na ko ay yow ay yow Muhammad waa bisu penc kañ lay ñëw yonent bi na ko waaw ana loo ko waajal mu ne ko dara jaamu yàlla gu màgg de xawma ko xam naa ne daal bëgg naa yàlla bëgg naa yonent yàlla yonent bi ne ko ki nga bëgg ngay àndal yowmal qiyaama sahaaba mu yi ñu ne sunu mbigu keroog musuñoo am mbig mu mel noonee lu a loolu ndax ñoom it yëgoon nañu ne bëgg nañ yàlla bëgg nañ yonent yàlla yéen ndawal julit moytu leen ki ngeen war a gën a bëgg mooy yàlla ak yonent yàlla sooy dund dëkk bu mel ne Sénégal nag daan magalal soxna diw ma gor gi diw nangam diw ba fàttaloo la yàlla ak yonenti yàlla waye xamal ne xol bi texe aduna texe alakhirah moy xol bo xamne yàlla ak yonentam la gën a bëgg leneen luddul yàlla ak yonentam xol bo xamne du bëgg luddul dul jaam nga xamne ni nii dañoo am ngërëmal yàlla yalla yàlla yombal ko ci ñeen yombal ko suñu njaboot allahumma rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azab annar allahuma habib al iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilina alkufra والفسوق الفسوق والعصيان وجعلنا برحمتك من الراشدين